ñooñu dañoo jënd yenn bor Ousseyn mii moo ñu jox ay bor dégg nga dañu war koo jox xaalis dem dinañ yóbbu maximum 7 wala 6 moo tax mu jox ñu ay bor yu bëri ñi nga xam ne bokk ñoom ñoom parti politique ñoom jënd jàppale nañ ñu am na ñoo xam ne jënd nañ ay bor ñun ñii tey lii may indi nañ ay bor pour suñu parti bi ñoom it ñu jàpp ci ñu jëndal ñu bor yooyu aussi. loolu laa amoon ci lu may wax di ñaan drapeau bi dañ ñëwaat géejawaay incha allah. waaw. Euh, mais yéen fépp apparemment bu ngeen dara donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi. Euh, ay sabar rek a fi manqué yaa ngeen bàkku yéen ñaar. ñu ngi encouragé encouragé promoteur. vraiment di ko ñaanal ne yàlla lii mu sumb yàlla defal ko ci lu kawe jox sax ñaanal ko yeneen i bés yoo réussite totale euh, félicité promoteur bi nga xamante ne moo tëgg bés bi ndax euh, su fekkee ne euh, yaa ngi jël bés bu mel noonu tuddee ko fédération départementale de Guédiawaye fédération départementale de Guédiawaye na ku ko wax wax la président Karim Meïssa Wade te. le président Karim Meïssa Wade moom ku ko wax xam ne njëriñu Sénégal kott moo tax nit ñi di sonn pour ko mu jiite Sénégal donc kon yow boo jëlee bés bu mel nii tuddee ñu ko ñu delloo ko le président Karim Meïssa Wade mooy jox nañ ko Sénégal yépp beneen bi si topp mooy làmb ji nga xamante ne moom nga tëgg muy diggante ñaari xale yoo xamante ne ñun ñi toog fii suñuy jarbaat lañu Mangi ngi tooñ le président Mbodj di wax ne ko sa jarbat moy bëreeg sama jarbat parce sa man sank maa ngi woo bas parce que bébé garga daf ma wo sank bi mo woo ma grand man dama am problème ou ay billet ma bëggoon na ngeen japp ci bu baax a baax parce que ko depuis Fatou ay dara moy and ak mom kon koku yi tamit doomu parti bi la muy ñaari doomu parti bi ñun nak liñuy wax moy lepp nañ ko def ci fair play ndax par démocratique sénégalais mom leppam ci fair play la koy def leppam da koy def ci façon bi nga xamanteni mom la ko rew mi bëggee ndax fiñu tollu ni tay ku ne xam ne espoir du Sénégal c'est Karim may sawad mom la ñëpp di xaar de wax ji mo bari ciow li bari ku nekk di wax waaye ki mën ak ki wax du benn te Karim ñi koy xaar ñëpp leen dong la ñuy xaar ci moom mooy jëf ji kon nag ñuy ñaan yàlla bés bii nga xamante ne ci la ñu war a dem mooy làmb ji la vingt 24 ñuy ñaan yàlla def ci réussite total lépp loo xamante ne borom mi ngi ko ci bëgg yàlla na ko yàlla defal may wax nag président Mbodj ne ko na ñaanal sama mbër mu daan mbërëm waaw ginnaaw ba ñu sante yàlla jul ci yonent bi sallallahu alayhi lu ñu wax loolu la wax lu ñu xool loolu la ñuy xool muy bis bu rëy bi nga xam ne moom lañ taxaw dëgmal muy làmb ju mag joo xam ne ñu ngi ko tuddee à fédération PDS bu Géejawaay département bu Géejawaay ki def loolu mooy kan mooy le grand promoteur Ousin Ousin production moo jox bis bi tudde ko le président Karim Meïssa Wade waaw làmb ju mag ci diggante Bébé Garga écrit dóor dóoraat ki ñu naan xale bu nga xam ne moo nekk moo dëkk Géejawaay ñuy wax Bébé doomu Sadio ah fils de nekk écrit dóor dóoraat dóor dóor écrit taaj si nga Bébé Garga moo nekk écrit dóor kii moo nekk écrit taaj si nga mu nekk ñaari xale yu am coow ñu jël làmb ji nag dara jaale ko le président Karim Meïssa Wade kon nag fa fédération baa ngi nii président baa ngi nii ah, ah yaa ngi nii ñëpp a ngi nii kon ñu ñu dem ci ah, ki nga xam ne moom mooy moo waral tool mooy promoteur bi ñu laaj kon nañu bari yëg-yëg la am ak ba ba def bis bu mag bii nga xam ne mooy mooy mooy làmb waaw waaw ah, sëñ bi maa ngi lay ziar bu baax li la nuyu di am kontaan ci question bi nga ma laaj.

ba ma ko xamee ba tey ci PDS laa ko xamee ba ma ko xamee ba tey ci Abdoulaye wat laa ko xamee ba ma ko xamee ba tey ci Karim Meïssa Wade laa ko xamee muy kan muy bas Mbacké ma woo ko xamal ko ne ko ni fédération departementale bu Géejawaay làmb ji may fas yéene tëgg le 24 février incha allah yéen laa ko bëgg a jagre bi ma ko waxee nag vraiment mu kontaan ci rafetlu ko ndax dëkk bi ñu dëkk bu rafet Golf Sud parce que nit boo ànd ak moom lu mat 20 ans. seen seen seen ànd rafet na li ma wax sànq nag avant may wax bas dama ko tuddee ciment la benn nooy tooy ñun ñoo bokkoon nekk fii mais ba affaire yi métier ñun dañoo nekk ci leneen mais boobu ba tey mi ngi resté gëm li mu gëm xamal ni ki nga xamante ni mooy fi utu ji président Macky Sall Karim Meïssa Wade nay doon mu yàgg cee sonn nag ma témoin fekkee. bi ñu ma gëmloo ko bi ñu ma demandé li nga xamante ne mooy fédération départementale bu Géejawaay ma ne ko yow laa koy jalgeel bi ma ko ko waxee mu jël ko dellowaat ko fédération bi tey ñiy def remise de drapeau bi mu indi ko fii nga xamante ne mooy seen permanence ma am ci mbégte bu baax a baax yàgg naa def remise de drapeau de waaye nii ñu ma accueillir yaakaar naan mu ngi door am lii wane na ni maanaam xeeboo leen bés bi bëgg ngeen bés bi waaye nag combat bi dafa am lu bari lu ci feeñ parce que suñu collègue bi wax na léegi lu am solo combat spécial bi ku ñuy wax Pape Thiam Junior dëkk naan ñun Pape Thiam nañ gën a xam mu bokk ci parti bi bokk ci li nga xamante ne lii sonn ci Karim Meïssa Wade tey kooku noonu mooy bëree combat spécial yi tey ñu fekk fi ay nitam fekk fi ay xaritam keneen ki ci wax usine technique bi nga xamante ne moom lay bëreel nekk ca HLM tey boo waxee minimum Ousin bu ma soñoon sama drapeau da nga ma koy defal drapeau Karim Meïssa bi ma toogee fii bi waa ji di wax li ma gën a marqué loolu ci la bokk muy combat boo xam te ñaari mbër yëpp kenn ku ci nekk waxuma ñii de mais combat spécial bu ñu sañoon ñii ñooy kii mooy nekk seen drapeau kon Karim Meïssa Wade am na cofeel ci jeunesse bi am na cofeel ci li nga xamante ni mooy réew mi li ñu koy ñaanal nag yàlla ko yàlla indeeg jàmm ba mu doon président la république gis nga première édition bi dañuy ñaan yàlla ñuy dund ñu di ko fekkee ba mu nekk ay dixième ay dixième des éditions di leen gërëm bu baax di leen sant di kontaan ci li nga xam te ne moom nga may accueil bi jërë ngeen jëf. Ah, yaakaar naa ne loolu leer na loolu leer na te wax ji rafet na mooy le grand promoteur Ouzin Production kon duñ def lu dul jébbal kàddu gi le président fédération Guédiawaye PDS ñu jox ko kàddu gi moom mu wax ci turu fédération bi yëpp. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu département Guédiawaye militant ak militante sympathisant yi nga xam ni ñoo nekk ci département Guédiawaye te nekk ñoo xam ni ñu bëgg Karim Wade lañu drapeau bi nga xam ni suñu rak suñu doom moo jël teranga ju toll nii ci période bii tudde ko fédération département bu Guédiawaye bu PDS vraiment wane na ni yëg nañu loolu comme yëg googu mu ñu yëg nag ñoo ngi koy delloo yëg gu raw googu ndax ñun li ñu gëm mooy parti démocratique sénégalais ak Karim Meïssa Wade suñu candidat 2024 kon nag damay wax rek département bi lii làmbu géejawaay la rawatina mbër yi koy bëree mu am ci ñaar ñoo xam ni dañu dëkk si département bi bok ci fédération bi tek ci suñu dekkone ci département bi nous ñu ci fédération bi sax dañu leen di soutenir bu baax a baax rawati nous Nous ñu tuddee ñu lamb ji ñaari mbër yi ci fédération bi di militants euh, yo xamni fidèle lañu ci parti bi kenn ki golf kenn ki kenn ku ci président wu section kon ji dina ala dawme yalla nañ ci yàlla yóbbu ci jamm ñuy wax na wa waa way gep nak xalé yi mag ñi ndaw ñi goor ñi jigen ñi ñepp de man jox naa leen rendez-vous inshallah le 24 ci arène nationale ñepp ñëpp waaye way ñew fess lamb ji del ndax bis bobu lañu am promoteur bi nak mom wax deug yalla amuñu payam dañuy ñaan yalla rek. yàlla na ko yàlla mi nga xam ni mooy yéegee nit ca la muy yëngu ba mu gën caa kowe yàlla na dund ba mu nekk eh, promoteur bi gën a kowe ci Sénégal ci Afrique ci wàllu làmb lu fekkee lépp kon jërëjëf jërëjëf Bas ñu ngi lay gërëm sa xarit la yow ku la xam-xam ni ni mu ko waxee ciment nga benn yoon ngay tooye kon da tooy ci PDS wow ci kon nag yow ak PDS mburoog soow mu jaxasoo la yaakari wàdd mburoog soow mu jaxasoo la boole naan mbaa boole tuur rek moo fa mën a nekk kon nag ñu ngi ci sa gannaaw di la jàppale guddi ak bëccëg incha allah jërë ngeen jëf gërëm nañu département bi yëpp gërëm suñu jigéen ñu baax ñi nga xam ni saa yi wootee ña nga fa xam naa ay làmba ja ñoo lu fa yëpp waaw ñoo fa yëpp waaye ñun ñëpp rek na nan mankoral dem te ñu def combat yëpp ci jàmm ak salaam. kon yaakaar naa ne buñ ci yalla yóbboog jamm bis bu reuy bobu nga xam moy mooy ju reuy ji ni xaar bu le 24 euh, euh, euh di ngeen di ngeen mobiliser wu yeen ñëpp yeen wa fédération PDS bu Guédiawaye ngeen and ak euh, représenter fofu monsieur Karim Wade Meïssa Wade. dama ne yemuma ci en tant que président fédération yemuma ci euh wa fédération Guédiawaye dong dama ne waa Guédiawaye gépp laa woo. Ah, waaw parce que bu ngeen ko tuddee won keneen ku bokul ci suñu fédération li mo wax dafa lèr te muy mbeur buy géejawaay eh, eh, bëree dëkk géejawaay promoteur bi dëkk géejawaay wala mu tuddee ko géejawaay man damay dem keneen day dem kon géejawaay gépp lañ wo benen bi sama xarit bo xamni nek nga ci Sénégal nga xamni ni yëng nga Modou Mboup dama ni jox naa la rendez-vous nga ñëw ca lamb ja dagg sa bee dugg solo ba fess ñëw kon yëbalewu ma ko ci def jërëjëf président Modou Mboup <laughs> jërëjëf president Modou Mour kon tamit dañuy jox jigen ni tamit ñom tamit nga xamne ñom ñoy militante PDS yi ak jeunesse bi ñom ñep ñom tamit am nañ ci wàll kon kon kon kon damay njëkkati sama jigen wala. assalamu ah, alaykum euh, mbolo mi ma ngi len di nuyu bu baax man la Adama job di len sant comme ni ñep wax rek li ñep wax li président bi wax promoteur bi wax ko. Euh, di remercier le promoteur je ah, di wax merci beaucoup parce que comme ni ñëpp wax rek drapeau bi bi nga koy tuddee fédération bu Géejawaay séenuwoo ci dara parce que si nous won dara do len ko tuddee donc ñu ngi lay remercier bu baax di xaar le jour ji rek ñu def délégation une forte délégation Nous tew inshallah. di ñaan yàlla rek que le meilleur gagne waaye nag euh, ki dëkk waaye moom na gagné drapeau bi dellu si waat fii si ñun. jërëjëf jërëjëf kon euh, waaw au nom de la jeunesse ñu jox euh, monsieur Jaraaf mooy mu wax ci jeunesse bi nga xam ne jeunesse moom bu nee làmb jeunes yi ñoo ko moom sport la te mooy sport de chez kon yow Jaraaf loolu nga wax ci bis boobu. waaw salaamaaleykum maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar. di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne teew nañ fi di nuyu suñu secrétaire général Bass Mbacké Diatta ak suñu président fédération Modou Mboup di remercier di jaajëfal bu baax ki nga xamante moo nekk promoteur bi tuddee tey lamb ji fédération PDS Guédiawaye ñu jëlaat ko tegal ko ci loxoy Karim Meïssa Wade mais tuddee gum ko tuddee fédération Guédiawaye jeunesse bi la ko defar bu ne sport na jeunesse buñ ne lamb na jeunesse donc moo tax ñun jeunesse bi duñ ci des duñ ci des ginnaaw moo tax dinañ woo jeunesse yëpp jeunesse bi yëpp ñu nekk ak même jeunesse bi ni nga xam ne dañoo nekk PDS te dëkkuñu géejawaay parce que géejawaay jeunesse géejawaay bu bu bu ayee bu PDS dafa mel ni jeunesse nationale yëpp ñoo ayee donc nañ ci woo ñëpp incha allah rabbi bu ko defee mu nekk làmb ju neex bu alaa dawme nee nañ luñ lépp loo xamante dafa jege Karim Wade ak lu taqee Karim Wade waru nekk li nga xamante ne lu lu lu lu yomb luy sedd donc nañ ci taq rib bu soobee yàlla incha allah rabbi ñaari mbër yi tamit ñu ngi leen di ñaanal que le meilleur gagne c'est waa kii gagne ok merci waaw kon dañuy nag waaw dañuy tëj kàddu ci le secrétaire général ah, ah, PDS bu Guédiawaye département Guédiawaye muy ah, Cheikh Mbacké Diatta kon Cheikh Mbacké eh, Bass Mbacké Diatta waaw Basiru Mbeg mi kenn du ko fàtte waaw Basiru waaw bis boobu lu ngeen ci def ak lu ngeen ci nar waaw jërëjëf ginnaaw bu ñu nuyoo ñi fi teew yëpp di nuyu mon ami Production un ami de longue date de def comme alayhi wa sallam le patriarche maître Abdoulaye de wax aussi nous ñaanaluñu le le le le fils prodige celui que tout le monde attend Karim Maïsawad Wade Sénégal dans le bref délai mu ngeen ñu drapeau bi ñu ko Sénégal mu ko ci alors man li ma wax c'est un grand promoteur Ouzin il fait partie des espoirs de ce peuple il fait partie des jeunes les plus prodiges parce que il crée l'initiative il il va au niveau de la banlieue il déniche les talents les nouveaux talents kon bok dañ remercier pour ce que tu es en train de faire pour la jeunesse de ce pays Montagne ñu ne le président de la fédération a parlé, une femme a parlé au nom des femmes de la, de la fédération départementale de Guédiawaï. Moi, je ne suis qu'un des ouvriers de la fédération, en l'occurrence le secrétaire général de la fédération. L'image a son heure, parce que au moment où nous parlons, on parle de Karim Baïsawad, Au moment où nous parlons, les gens spéculent beaucoup sur le nom de Karim Ouad, parce que le peuple a besoin de lui, malgré qu'il y a des manigances qui se font sentir mais Dieu est juste Karim a été déporté pendant des années ñu génnee ko Sénégal def ko li ñu ko def génnee ko Sénégal mu dem remplir critères pour être le président de la République il continue à lui mettre les bâtons dans les roues mais je dis que Dieu est juste alors Dieu est juste Nous sommes yow tey nga Nous drapeau bi nga tuddee ñu ko ñun jël xooluñu lu dul Karim Wade moo fi nekk moom la ñuy rek ñun moom rek top ñun luñ ñu jox ñu Karim kon nga ñu lu tout simplement les les les les lutteurs soyez fair play sachez que yéen ngi a def drapeau le futur président de la république Karim quel que soit le délai qu'il attendra mais c'est le futur président de la république donc cette première édition est dédiée à la Fédération départementale de Guédiawaï, nous invitons tout le monde. Nous invitons tous ceux qui sont dans le Parti sénégalais, en commençant par les députés, le président du groupe parlementaire, nous l'invitons à se joindre à nous. Lamine Nous invitons le chargé des structures saloudien à se joindre à nous. Nous invitons tous les députés du Sénégal, particulièrement les députés du Parti démocratique sénégalais à venir hisser le drapeau de Karibouane haut. Oh, nous invitons l'ensemble des militants de la fédération de Guédiawaï et de l'intérieur du pays. Il y a au moment où nous parlons, sachez que le drapeau là, c'est votre drapeau. Au moment où nous parlons, le drapeau là est dédié aux PDS tout entière. kon jox coalition Wallobi, qui est beaucoup de dégg ku vous joindre à nous pour nous hisser le drapeau qui va nous amener au niveau des stations les plus yu gën au niveau du Sénégal kaddu yi laa amoon pour wax ko Sénégal di leen ne c'est dans le fair play que ça va se faire le drapeau la amul xeex amul xuloo amul ŋaayoo def leen seen open press dans les règles de l'art on a vu que quel membre UGTL il fait partie de ceux qui vont disputer le le drapeau il habite Quelqu'un qui est ci suñu jarbaat la il habite Parcelle. donc nous sommes ci ak là la ñun suñu objectif c'est d'aller de l'avant que le maire gagne wuré wa dem nëkk ak nag waxi mag dem na yàlla nañu yàlla defal jàmm ca kaw ca kanam Ouzin Production